mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi am mbégte ànd ak yéen seen télévision nationale ñu ngi am mbégte xam ne yéen a ñuy topp ci réew mi Sénégal waaye dañu topp fépp ci biir àddina bi mu di RTS 1 wax naa leen ko léegi doomi Sénégal bi ñuy woowee aadama Dieng haut fonctionnaire des Nations Unies la maanaam boo déggee loolu kuréelu mbootaay xeet yi foofee dafa yor ndomba tànk lu kawe moom Adama Dieng mooy xelal itam secrétaire général ci wàllub li ñuy wax génocide maanaam yenn ñaawteef yi nga xam ne day am ci yenn réew yi rawatina itam réew yu mel ni euh, Irak moom Adama Dieng nag euh, ginnaaw bi ñu ko folee mu dellusiwaat ci réew mi di laaj président de la république xalaatam ci loolu nga xam ne dénk nañ ko ko bi mu génnee nag ca audience boobu kàddu yi la dénk Aboubacry Kane dama am mbégte euh, waxtaan ak njiitum réew mi mu doon kilifa gu nga xam ne kii càmm la fonk parce que jàmm ci loolu nekk xej loolu mooy ci gàttal li nga xam ne lii moom la ma wax jàmm nag mooy li nga xam ne aussi moom la njiitu Nations Unies ki nga xam ne ki moom la ñu samp euh, barki démb muy Antonio Guterres nee na bëgg na année 2017 bi nekk année wu jàmm lii xew ci àdduna bi muy Sud Soudan Euh, gox bi nga xam ne bii dem naa fa am na ay quelques semaines muy Irak muy Myanmar euh, doon jamono nekk na ci jamono boo xam ne bi la àdduna bi dafa doy waar ba nga xam ni war nañu fexe dajaloo nekk benn euh, am naa yaakaar ni Sénégal ak diplomatie bi nga xam ne bi la dafa sëkku ci principe principe droit international maanaam euh, diggante réew yi jàmm xaj na ci te jàmm boobule li koy gën a mën a yombal mooy nuy topp li nga xam ni moom la droit international santaane ci kaw loolu nag mooy li nga xam ni moom la Sénégal mës a def te di ko continuer ma si am nag mbégte lool ginnaaw Adama Dieng au fonctionnaire des Nations Unies président de la République dalal na itam ñi nga xam ne ay responsable politique yu commune yu Fatick lañu bokk ci APR ñoom nag euh, dogu nañ daal àndandoo liggéey nag ngir euh, jàppale doomu Fatick yëpp ci lépp loo xam ne daal bëgg nañ ko bi nu dajee ak président de la République ba pare ñaar ci ñoom directeur général bu port autonome bu Dakar ak maire dëkk ba kàddu yi la ñu dénk Aboubacry Kane sant yàlla bu baax parce que dajeek njiitu réew mi lu rëy la ci ñun d'ailleurs mooy njiitu réew mi waaye dañuy fàttali ne c'est le leader naturel de la région de Fatick euh, nekk it le maire honoraire de la ville de Fatick ñu daje nag pour wax lu jëmale suñu gox kanam région bi yëpp ñetti département yi waaye plus particulièrement commune Fatick bi ñu dajee ak le docteur Cheikh waxtaan nañu parce que objectif boo ko amee doo ko raté li ñu am ci suñu kanam tey l'élection législative la ak élection présidentielle muy développement dëkk bi muy ñaari rendez-vous yooyu suñ ci buggee gunge président de la république ni ñu ko war a gunge defe naa ne joxante loxo ak doomu Fatick yëpp ñi fi teew ak ñi fi teewul ñun ñëpp ñu joxante loxo loolooy tax ñu gën a mën a gunge efficacement le président Macky Sall looloo tax ñu daje fii tey waxtaan le docteur Cheikh Kanté maag moom ñu joxante loxo te di jëm. ci ay mission yoo xamante ne yeneen doomu Fatick yi dinañ ci bokk ak les autres ministres yi nekk ci région bi pour ñu wër région Fatick yëpp wër département yëpp jàppale nit ñi ñu bindu mais ñu ànd joxante loxo pour gën a mën a gunge le président Macky Sall. président de la République euh, daf ñu woo rafetlu liggéey bi ñu def mais nag euh, lu kenn mën ñaar ñoo ko dàq euh, sañu ñu pour ñu ànd bokk ndeeg bàyyi. liggéey parce que Fatick dafa nekk dëkk bu euh, nekk symbole actuellement dëkku président de la République la donc ñu war a déjà sauvegarder patrimoine bi nga xam ne bii bàyyi nañu ko fa su fa fekk su fa bàyyi woon benn su ñëwee war na fa fekk fukk moo tax tey devant le président de la République ñu ànd jël engagement ne dinañ bokk ndey bokk bàyyi ñaax xale yi mag ñi ñu war a inscrire ñu inscrire ñu yokk population électorale bi wàcc ci département yi wàcc Foundiougne wàcc Gossas fépp ñu war a mën a dem ci Sénégal ñu wàcc fa pour mën nit ñi mën a dem inscrire jox président déjà la majorité à l'Assemblée ñu mën ko fal au premier tour en 2019 fukki député ak juróom yu bees ci ay weer yi di ñëw daañu dalal nag ci assemblée nationale loolu nag député yi ñoo ko dogal ginnaaw bi nga xamee voté nañu démb lii di code électoral bu bees bi nga xam ni moom la ñu indi woon foofu ci assemblée nationale ci teewaayug ministre de l'intérieur jàpp nañu nag ne fukki député ak juróom yu bees yooyu la ñoom waa diaspora doomi Sénégal ya yeewoo ca bitim réew ñoom la ñuy teewal ci assemblée nationale bi Thierno Ahmadou Sy code jóge ci juróom-ñetti xët dem ca fukk li nga xam ni moo jëm ci charte bi mu ngi tukkee ci loo xam ni waxtaane nañ ko ci référendum bu ñu mujj fii ci réewu Sénégal ci assemblée nationale ay waxtaan jolli fa diiru juróomi waxtu député ya di waxtaan ci kanamu ministre de l'intérieur. le problème moo bi sa approche par rapport à l'opposition ak li nga xam ne moom ngay def la gestion partisane loolu il faut ñu di ko dénoncer dañuy continuer di ko dénoncer nee nañ dañuy def lu leen neex. continuer leen di def lu leen neex Sénégal ci wàllu woote ñett yi am na ko des élections libres démocratiques et transparentes loolu benn réew gën ko am la ci àdduna kon di wax ne bulletin unique ndax dañuy xeex achat de conscience ñàkk a xam histoire politique gu Sénégal la su fekkoon ne achat de conscience dana tax nguur du daanu 2000 parti socialiste du ñàkk réew mi su fekkoon ne achat de conscience mën naa tax nguur du daanu Abdoulaye Wade du perte élection 2012. parce que ñi falu ñi fa ñu folli ñoo leen ëpp xaalis kon xaalis du jox réew nguur di wax loolu ku koy wax xasuloo Abdoulaye Daouda Diallo xasuloo Moustapha Niass xasuloo Macky Sall Sénégal ngay xas. tey jii nag ci assemblée li gën a fës ca waxtaan yooyu bokk na si député yi nga xam ne ñoom la ñu jagleel diaspora bu Sénégal limba fas yéene toll ci fukk ak juróomi député. chaque fois que ñu yokk département dañuy yokk limu assemblée nationale. Euh, su ngeen gisee 2007 euh, dañu amoon ak 2009 autant pour moi dañu amoon benn assemblée 120 députés moo si nekkoon bu ñu yokkee département yi si biir réew mi ñu yokk si fanweeri député bi it dañu yokk euh, disons département si bitim réew maanaam huit département ñu jaglal ko waa diaspora xam ngeen ne diaspora moom lu mu représenté si réew mi tax na. ba nga xam ne xalaat nañu ne en tout cas yelloo nañu si lu bëre loola tax ñu ñu yokk lim bi ñu jagle leen ay quinze députés pour au moins ñu mun leen toogal fi euh, ñu mu leen euh, saytul ak euh, xoolal doxalin réew mi mais surtout indi ñoom it seen proposition si réew mi nu muy doxee. leneen lu yitteel député yu Sénégal mooy bis bi nga xam ni moom lañ jàpp ni moom lañu ñu war a def woote bi ñu dëgmal di woote législative loola nag ñu ngi ko jàppoon ci ñaari fan ci weeru sulet. député yi wax nii bis bi dañ ko war a xoolaat. li ma xam en tant que technicien bi mooy euh, fixer période bi nga xam ne loolu la loi bi wax loi bi def ni 60 jours avant la fin du mandat 20 jours avant la fin du mandat au plus tard loolu nag suñu ko xayma day correspondre ak 30 mai 2017 période boobu 30 mai 2017 ba 10 juillet 2017 si biir diir boobu président de la république mooy tànn. dimanche bi nga xam ne élection yi war na mun a am waaye léegi yéen gis ngeen fi euh, député yi jooyte nañu si lu bëri maanaam euh, si date tenue d'élection si biir boobu parce que euh, c'est vrai que déjà si biir Ramadan la ñu nekk faw ñu ko arrêté loolu si biir Ramadan la ñu nekk waaye man wax naa leen loolu du suma du suma du suma cër ñoom ñoo war a saytu loolu waxtaanee ko ak président la République ñoom suñu ko proposé président suñu d'accord ñoom ñëpp classe politique bi war nañu ko mun seetaat. code bu bees bi ministre de l'intérieur jàpp ni dafa wuyu charte réewu senegal ak bëgg-bëgg doomu Sénégal yi moom ministre de l'intérieur mu jàpp ni dafay dooleel démocratie ba pare itam lépp loo xam ne jëm na ci wàllu woote mu mun koo gën a setal gën koo leeral mu nekk woote yu aw ci yoon. looloo waral député yi ci assemblée nationale ñu si gën a bëri woote ko. kon jàllale code bi. Thierno Ahmadou si ginnaaw waxtaan itam euh, talal nga sa micro ministre de l'intérieur Abdoulaye Daouda Diallo mi ngi dellu si nag euh, ci saytu ak defaraat bi ñu war a defaraat liste ku wote yi. beneen bi mooy euh, si si révision si si code liste électorale gis ngeen boobu mu ngi sant si yàlla opposition bi si boppam moo proposé ñu ñu ñu adopté ko sans débat. loolu moo di disposition yëpp d' accord nañu si et loolu je rappelle aussi que euh, li ñu si proposé soppite yooyu euh, dañu ko jëlee ginnaaw bu ñu président de la république donc euh, joxe audience ñoom opposition ñu waxtaan si yooyu ñu ñu laaj ñu ñaan ko ndax du ñu dindi maanaam dison question préalable bu ñu amoon si liste si ci si ci si si si si loi bu njëkk bi maanaam moo doon ndax dañu laaj ne ndax da ngay confirmer am déet si bind loolu président d'accord nañu c'est pas la ñu laaj ko nit à la limite nit képp ki nga xam ne présenté wu nga parce que c'est obligatoire pour nga am sa carte mun nañu comme que yaa ngi woon si liste bi considéré nañu que yaa ngi waat ci biir liste boobu donc mooy reconnaissance automatique. beneen bi dañu d'accord ne suñu demee ba lim bi tollu 4 millions au moins fekkee ne euh, inscription bi pare normalement war nañu ne xalaat fichier boobu baax na ñun opposition ak majoritaire ñoo ci d'accord. effectivement donc opposition ak majorité moo d'accord si loolu pour que suñu amee 4 millions au moins su fekkee inscription bi fa la yemagum parce que inscription day wéy di continuer mais au moins il faut ñu arrêté ko pour ñu mun def élection jàll si leneen su fekkee ne am nañu 4 millions au moins xalaat nañu ne fichier boobu baax na il faut ñu toggaat ñu cambaraat ko auditer ko maanaam xool ndax lépp yemb na pour lu mu am rek ñu adopté ko pour ñu def si biir pour la ñu arrêté 4 millions yi fichier actuel bi 5 millions 300 électeurs la stock mort maanaam lu ñuy wax nit yi nga xam ne presque mu musuñu woote depuis bu ñu adopté fichier bi ba léegi euh, toll nañu en fait si ci si 4 si 1 million 300. suñu si dindee ñooñu 4 million ñooy des 4 millions ñi nga xam ne ñoo doon di woote toujours bien évidemment war nañ si yokk quand même euh, ndaw yi nga xam ne peut-être dinañoo en 18 ans le jour des élections yooyu yëpp suñu ko defee si biir effectivement donc war nañu toll si 4 millions suñu amee daal fichier boobu war na baax loola tax ñu arrêté loolu. Femme Sénégal handicap international Africa Rice loolu ñetti kuréel la yoo xam ne ràññee nañ leen fii ci Sénégal waaye it ci bitim réew ñuy wéyal nag ay euh, programme ngir gën a doxal programme yooyu nag xaatim nañu ab këyit boo xam ne day mandargaal léegi rek euh, seen i toogaay Lamine Touré. nguuru Sénégal mi ngi wéy di yombal liggéeyu lu ñu duppee organisation non gouvernementale mooy ay partenaires yu am solo ci wàllu développement bu Sénégal. li ko firndeel mooy signature accord de siège yi diggante nguuru Sénégal ak ñetti organisation yu ñu ràññee bu baax a baax ci wàllu suxali suñu koom-koom Oxfam Sénégal Handicap International ak Africa RAES di rafetlu bu baax a baax itam taxawaayu nguuru Sénégal ci partenariat bi ñoom nag seen liggéey fës na bu baax a baax ci ay région yu bëri Dakar Saint-Louis ak Ziguinchor foo dem ONG ñu ngi yëngu bu baax a baax ci wàllu éducation wér-gu-yaram ak ci wàllu suuxali jàmm ca Casamance mooy liggéeyu handicap international rawatina ci wàllu déminage. ngok Lamine Touré Sénégal di gën a wone xarañam ci li nga xam ni moom la ñu wax télécommunication mu di jokkoo gi xawatina itam li ñu wax numérique gën ànd ak jamono bi la yoon nag ñu jéggi Sénégal dem ci Afrique sowu jant ci réew yi xawatina itam Togo Philomène Consor Diagne wàllu intégration africaine di gën a jëm kanam ak euh, xaatimu ñaari accord yi benn bi laale wàllu free roaming ci biir Afrique sowu jant beneen bi nekk lu nga xamante ne rek day tax ñaari dëkk yi nga xamante ne mooy Sénégal ak Togo di jokkalante ci wàllu télécommunication. même réseau nag lu muy firnde mooy su fekkente ne yaa ngi ci même réseau booy jot appel duñ la fayeeku. bu fekkee da ngay émettre appel da ngay émettre appel au tarif ci réseau bi nga xam ne moom nga nekk ñu ne nag comme ñun cinq yi daje woon xaatim nañu protocole bi il va falloir que ñeneen ñi bu ñu ñëwee ñu am kenn koo xam ne moo leen di dalal moo leen di gàttandu mooy Sénégal ñu tànn ko mu coordonné loolu mu gàttandu ñi nga xam ne dañu gis projet boobu njëriñam pour que ñuy ñëw ñaari convention yi nag day tax rek ba Afrique mën a développer benn réseau bu nga xamante ne réew yëpp ñoo koy bokk rawatina dëkk yi nga xamante ne ñoo bokk ci Smart Africa yokk ci njëkk woote yi tamit day gën di wàññiku projet boobu dina tax ñu mën a wàññi coût téléphone bi dina tax aussi ñu mën a renforcer coopération suñu diggante réew yi mais également renforcer mobilité euh, nit ñi puisque li ñu jublu ci CEDEAO mooy am espace communautaire donc bu ñu waxee espace communautaire nag ci wàllu koom ak wàllu communication dañoo bëgg lépp ñu defandoo ko ñun ñëpp ñu harmoniser suñu politique ci loolu la ñuy wéy ba léegi parce que digga après ñaari opérateurs yi ñun aussi ak ministère euh, togolais en charge de télécoms incha allah dinañu xaatim benn convention pour mën a weccante xalaat ci projet yu ñu am ak réforme yu ñuy def ci réew yi ci jamono gi ñu amal xaatim bi nag wàllu connexion internet bokkagu ci waaye terme yi nga xamante ne ñoo lal accord bi ci wàllu free roaming dinañu door ci fanweeri fan ak benn ci weeru mars bi ñu jëm. léeg-léeg nit euh, nekk ci kër ba mu yàgg mu xëj wala mu xëm wala mu sonn lool am jafe-jafe ci wàllug euh, yaramam maanaam feebar. léeg-léeg nag euh, jafe-jafe yooyu su amee liñ ko mën a jàppale rek mooy lu mel ni boîte à pharmacie loolu nag dafa war a am ci kër gu ne rawatina itam service bu ne boo xam ne doomi aadama yi dañ fay euh, daje loolu nag moo tax tey ñu daal di gestu daal def ab reportage jagleel ko boîte à pharmacie ngir gën a yee nit ñi nekk ci loolu nga xam ne mënuñu wax boîte à pharmacie Oumou Baldé nit bu am gaañu gaañu bu ndaw lu muy njëkk a xalaat mooy am ci saa si lu koy saafara moo tax ñu bëri di am lu ñuy wax boîte à pharmacie. waa am naa ko garabu garabu soj garabu yaram bu tàng am naa bétadine am naa alcool parce que dama yor ay xale moo tax suñu gaañoo dama leen di faj seen yaram su tàngee ak garabu soj bi dama leen di jox ñu naan. c'est très important ndax man sama bi muy dund kokki yebbee tout te pourtant village la nekkoon amoon na yëpp benn buffet boo xam ne lépp ci nekkoon amoon na ay boo lakkee liñ ciy def ay mercurochrome alcool coton yooyu noonu amoon na ko ay garabu bopp buy métti yooyu yëpp amoon na ko man de ma am bariwul aspirine daal lañ ci kaw comme pharmacie bi soriwu ma yenn saa yi su dara kiiwee rek damay daw mais nag lu war a am la ci kër yi. ñu ci bëri jàpp nañ ni denc garab am na njëriñ ñenn ñi dañoo gis ni du fu nekk nag lañ ko war a denc. amu baat pharmacie si sama oto mais am naa ko ci kër ga at fi may liggéeyee waaw dama xalaat ni euh, comme am naa ko ci kër ga at fi may liggéeyee euh, su fekkee ni par am naa benn ennui yu mel noonu bon mën naa jël garab foofu wala ma dem ci benn opital wala benn dispensaire comme léegi foo tourné rek am na dispensaire wala pharmacie wala dispensaire boobu su boobaa pour man mooy gën a efficace quoi. muy si kër si woto wala feneen nit ku nekk war na am yenn jumtukaay yi bu su amee gaañu gaañu bu ndaw mu fajal ko boppam. boîte à pharmacie de lu lu mënul ñàkk la ndax ak fépp fu nit mën a ne mën na am euh, gàllankoor bu ko fa fekk te waaju ko gannaaw ba waaju ko war na nekk en mesure am loo xamante ni dina ko dina tax mu mën a euh, régler problème am fileeg muy dem hôpital wala bërëb bu demee noonu moo tax mën na ko am ci oto ci kër ga surtout pour pour euh, jigéen ñi xam ne ñoom seen doom yi mën nañ leen yee guddi gi am fièvre wala lu demee noonu ñu war a soxla urgence am garab te du pharmacie moom moo leen di jege tout moo tax war nañ ko am à la maison mën nañ ko am tam seen biir oto mën nga am gaañu gaañu walla benn am lu la dal tamit mën nga ko am sa bureau pour à chaque fois bu amee benn loo xam ne dalaa bett mu ñëw nga mën a au moins fexe def soins yu njëkk yi balaa ngay mën dem hôpital. waaye lu mat a leeral itam mooy du xeetu garab bu nekk la denc ak du nu nekk lañ ko war a dencee. parce que bu dee dañ ciy jublu pour pour nettoyer rek alcool coton ak xëy na gant pour stériliser loolu doy na ci sëkk waaye bu dee pour leneen la pour wàññi mettit wala dara su boobaa la ci garab yi di mën a bokk dootu nekk lu externe kese mais dañuy jël ay garab yi ci mel ni paracétamol wala ibuprofène wala sax yoo xam ne mën na arrêté jaare wala yu demee noonu xam bu nit ki sentir ne lii mu ngi koy waaji daal rek war na ko mën a jël après mu mu régler problème am balaa muy mën a dem hôpital wala lu demee noonu xanaa xëy na am euh, nun koy sàmmee rek lu si mel ni mm, booyet boo tijji nga tëjaat ko bu fekkee flacon la tamit nga ubbi ko balaa ngay kii nga tëjaat ko comme ça mu leer la ne contamination du ci am lu salte ju dem te loo utiliser wa pare nga sànni ko boo ko mënee tam di ko renouveler di ko mottali de temps en temps pour comprimer itam ñoom mënuñ ne tuufaay xam ne tuufaay boo ko commencé tuuf mën nga def euh, ñaari semaine bu bëree bu bëri mënatoo ko utiliser moo tax comprimé mën na jël durée bu gën a yàgg na dat dat bi baax rek. ak li ci mënta nekk ku am lu la jaaxal ci wàllu garab da nga war a dem ci pharmacien mu xelal la. boîte à pharmacie Oumou Baldé wax na ko war a am ci kër yi war a am ci service yi waaye it euh, war a am ci oto yi noonu it la war a amee ci avion yi kaaraangeeg avion yi xam ngeen ni loolu def cee bokk asek naa nag euh, muy kuréel gi.